وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سيأتيني وأعوذ بك ربي أن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم لممكن يا من له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت لي ما لم يكن ولا يكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina ñi ñuy déglu ci rajo sunu kër FM ñoo ngi delluwaat di leen nuyu baax te di leen ziar te ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu àggale ñu ak ci bis bi ñuy séntu di 18 safar te la ca borom Touba radiallahu anhu santaane ci santale ko ci boroom ñu joxe ko na mu ko santane ci anam gu sel te suñu borom nangul ñu lepp te te fulen ñu tiyaba ja donc ñaan ci bax barke Serigne Touba ñi ngi tollon kon ci suñu waxtaan wi ñu tambalé won mu jëm ci tukib geeg gi ci étape bi nga xamé né mo mujju ci tukki bi di Lambaréné leeraloon nañ Lambaréné fan la ne ci biir Gabon ak naka la climat bi tëdde ak kañ lañ fa yóbbu sëriñ Touba ak lu fa am ak lenn ci ay xew-xew yi nga xam ne dund ko fa. Euh, xam naa ci suñu waxtaanu tey dañuy mottali tuuti rek ci li desoon ci état bu bi euh, <clears throat> jàll ci li nga xamee ne mooy ak ñi biseem jóge Gabon ñëw Sénégal kon Lambaréné étape la boo xam ne kon étape bu am solo la ci bitiku géej gi ndax diir ba fa sëriñ bu mag bi di nekk ci la taalibe yi tàmbali di tàmbalee ko di mm, bàyyi ko Sénégal di dem di ko fa siyaare nga xam ne foofu ci Lambaréné diir ba mu fay nekk am na ñu bari ñu ko fa fekk ci taalibe yi ci ay ci taalibe ak mbokk yi yu bàyyi ko Sénégal xañ na mën nañ caa tudd. ki nga xamne moko moo ko fekk di sëñ Muhammad Lo Dagana sëriñ Muhammad Lo Dagana xamne talib taalib kenn loon ci magi taalibe yi magi ci magi taalibe yi fesson lol ci bëgg sëriñ bi sa sopp ko mom mo njëkk jël engagement fekk sëriñ touba gabo sét ji ko ginaa bo xamé ne tok nañ lu mat juroom juroom yaat tek juroom benn yo xam gisuñu ko xamuñ ci lu ne mo def kon muxaamara bobu manam Euh, ngir fekk sëriñ foofu ci Gabon ci jamono yoo xam ne jamono yu wóoru di la woon ci euh, condition xam ne maanaam ay euh, circonstances yoo xam ne circonstances yu danger la woon waaye teewul moom sëriñ bi jaraloon na ko loolu ba mu jël war gaal dem ba Gabon fekk ji ko fa am fay fan ak ku mel ne rakkam Cheikh Sidi Muxtaar di ñu gën ko siwee ci maam Cheikh Anta moom it bokk na ci ñi ko dafa seet woon sëriñ bi seet na fa sëriñ bi ba moom sax moom sëriñ bi euh, jox na ko fa lu bari ci ay taalif yi mu fa taalife sant ko ne ko boo delloo senegal na nga ko muul noonu ko sëriñ bi sante noonu la ko defee bi mu agsi Sénégal la yóbbu yu bari la baree bari ci réew yi naare mboolu ko yooyu am na yu fi ne ba léegi ku mel mam ibrahim fall mom dimut waye yabal yabal na fam delegation wajal na wajal na ab delegation bu am solo yabal len fa ñu fekk serigne bi sedd ko fa ci lambarena bokk na ci tax itam lambarena nek étape bu am solo ci bi tukki geeg gi euh moy fa la serigne bi motale ab ligéyam naal yim doon naal ak mbébét yim don mbébét yépp fofal la ko fofal la joté ci lepp mu mat sekk nga xamné mom ak ñibem day daal di jot foofe ci làmbe na la mujj doon jaamu bu yàlla bu yàlla jaamoo loolu maanaam leeraloon nañu ko ci ginnaaw fa la mujj doone tam euh, grand serviteur bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala meilleur serviteur euh, foofe itam ci làmbe na la àggee ci suñu boroom ak giin wa mu bëggoon tanam moon ko foofu ca làmbe na la mujj doon xaritu bi yàlla di soppe bi yàlla di xaritu bi yonent bi sallallahu alayhi wa di ab soppeem yëpp di ay daraja ak i yoo xam ne yoo am solo la yoo xam ne euh, sëriñ bi foofu la ko liggéeyee ak gimaag ci làmbar ne foofu ca ci yàlla ca làmbar ne mu ngi koy junj ci euh, foofu ci xasida ak di wax laahi qad wasaltu inda galwa wa saanani amma yajurul balwa euh, loolu kon def ci junj kon li nga xamee ne moom la euh, maanaam yooyu mbibitam ak naalam yooyu nga xam ne moom la mottalee amee ko jote ci foofee ca làmbari xam naa ne fi ñu jeexalee dañuy <clears throat> tudd lenn rek ci ay xarbaax ak i kiimaan yoo xam dund na ko foofee ca Gabon euh, généralement rek ci yi ci làmbari na li xewee yi ci euh, Mayomba yi ci Libreville dañ ciy tudd yenn rek bari na waaye dañ ciy tudd yenn rek ngir daanee la ci ci mel ne nee na tolloon nañ jëmi jamono demee ba seen jéem yi ñu jéem ak effort yi ñuy def ngir faat ko biñ demee ba bari lool te yëpp échec ñee dañoo wéet ak benn labbe laaj ko xalaat laaj ko xalaat ci maanaam kii loo jàpp ne lu loo jàpp ne maanaam moo tax suñuy pexe ci ma mun la ànd labbe bi waxu leen dara lul indi leen ko ma wéet ak moom eh, examiner ko maanaam natt ko ba xool ba xam eh, ba noppi door leen a tontu bi nga xamee ne indi nañ ko mu wéet moom ab diir ginaaw ba la génn ne leen kii daal li ma xam mu wóor mooy ne mënu leen koo jekk mukk tànk fexewu leen moom mu mooy yàlla dañu daal di gis ne kon la làbbe ya waxoon ca bato ba ba taxoon ñi def moom pexe yooyu ko taxoon a julli ci géej ga euh, fii même te bi te moom it loolu di rek leen tontu ne leen ni ngeen fexe mooy yàlla nag xam nga kon fii kii pexe mi mu joxe wuti na ak fii moom day leen waajal leen na wut ak jigéen joo xam ne ab jàmbur doon ah jigéen rek wut leen ak jigéen ndax foofu moom jigéen ñi ne ab jàmbur lañ Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ne wutal fexe leen ba waajal jigéen njege maar boo xam ne day rafet ngeen jox ko ak col gu rafet waajal ko daal ba mu waaj waaj waajin rafet ngeen boole kook moom ci mu nekk tëj leen ñu bokk fa wet ngir di jàpp bu ñu defee loolu seytaane dana mën a dox ci diggante bi ñu def noonu booy leen ci am néeg tëj leen yóbbu caabi ji ba ñëwee ba yàgg ñi dellu siwaat tëjji bunt bi bi ñu tijjee bunt bi fekk fa Sëñ Tuubaa dong mu toog di bind na ndax moom fu ñu ko yóbbu moom mu yegg ci bagaasam moom day daal di mu defee seen i pexe ba ba wàññi ko rek day day day daal di moom tàmbale wéyal ab liggéeyam ci bind bi ñu digg si fekk ko moom dong ci néeg bi tam ñaar lañ fa boole woon waaye moom dong lañ fa fekk mu ne ci néeg bi di di di di, di di bind euh ñi laaj ko ndaw si ndaw si xamna xam ñaar lañ fi bolé won tej señ wi tontu leen waaye biñ demee ba sonal ko ci laaj bi mu jël khalimam euh ku parti ben keul bu këppee won am ñi seen ca mbott mu joxañ mu jël xalima gi joxañ ci mbott mi daan ne euh, fii daal lii rek laa fi gis bi mu jëlee xalima gi joxañ ko ci mbott mi wax lool rek mbott mi ñi seen mu soppiku doon euh, jigéen giñ fi dugaloon waaye nag dafa tëdd di nelaw nag ñu daat ko yee biñ ko yee ne ko waa lu xew nag fi ne biñ leen fi tëjee bàyyi leen fi muy leen gis ngeen fi dal ba ngeen ma fi dajee ba wone ginnaw bobu la xajé a xam sama bop dara ba ngeen ma yeeyee nii loolu kon am na foofii ca Gabon am la serigne bi di junj ci ayassa ba légui day wax naan allamani alalimu inda zaxirat mimma yashaau wa kafaani alkafirat bokk na ci xew-xew ya fa am itam nee am na benn capitaine bu mos a ñëw ci moom ci capitaine soldaar yi indi ak fetal jël bal ba génne bal ba bal benn balu fetal ne ko gis nga yow boo moytuwul maanaam fetal bal bii dinaa ko monter sama fetal gi tiir la ci nga faatu nee loolu la ko wax sëriñ bi nee ma jël sama baaraam teg ko ci bàllu fetal bi bàllu fetal bi doon ndox doon ndox muy wala ngaan ndox di soppi ko ndox di toq ci ay loxoom. nee na bi ne ko waa lii lii loo ko mën lii kon mën nga soppi bàllu fetal bi mu doon ndox sëriñ bi loolu mooy li yàlla dogal loolu nee bokk na ci xarbaax yi nga xamee ne dund na ko foofee ca Gabon bokk na ci atam ne bis ab tubaab dafa mës a ñëw ci moom fekk mu di bind tubaab bi ànd ko xaj. fi ñëwee fekk mu toog di bind yëru këyitam këyit yi yër ay këyitam di bind nee na këyit yi tasaaroo fu ne xaj bi yóotu ci benn këyit nar koo laal laal na ko sax kay sëriñ bi wax tubaab bi nag ne ko sa teel sa xaj bi bu bi nag fii mu daal am occasion ndax moom lu ñoom lu neex naqari sëriñ bi xam ne ne ko ndekk bi laal këyit yi lu neexul sëriñ bi yëmul ci xiirtalaat xaj ba xaj benn xaj bi mu indiwoon mu laal këyit waaye dafa daal di génn indi xaj yu bare bare bare bare ngir ñi laal kii di ba sëñ bi gën am lu ko naqari waaye bim indilee groupe bu xajam ba dugg si fi sëñ bi ak fi sëñ bi ne rek sëñ daara di jël xalima gi maanaam wéccax ko xaj bi ko ci gën a jege xaj ba tàkk tàkk do tàkk tàkk sawar bi ñëpp di ko siin mu daw yeneen xaj yi ci des yëpp topp ko benn yëpp maase ta di tàkk waaw tubaab bi xam daal di daw moom it ànd ak ya. loolu sëñ bi ne bokk ci xar yi nga xam ne loolu sëñ bi nettali na ko foofee ca xar baax yi nga xam ne dund na ko foofee ca mm, Gabon. kon xaj na mën nañoo doy lool loolu ci karaamaat yi nga xam ne moom la dund foofu ci Gabon. yu bari la nag waaye dañ cee doy lool ngir ngir ngir ngir tënk ñi ñëw nag ci ak bàyyi koom Gabon ñi di leen si waat ko Sénégal mu ñibbisi lan moo ko sabab ak nan la amee euh, sëriñ bi moom balaa dara xew moom mos mosut mosut am problème ndax dana delluwaat Sénégal wala du fa du fa delluwaat loolu moom problème mosu ko am moom moom naka jekk xamoon na ne Gabon gi am liggéey rek ko ko fi indi su matee dara dama ñu ko delluwaat Sénégal nga xamee noonu la ko doon waxee ci bato bi te jaaroon ci moo tax bi nga xamee ne yàlla dogal na kon lim doon mbébét ajoon ko ci biir tukki bi lépp mat na yàlla dogal benn capitaine ci capitaine yi soldaar yi di ab bis mu woko momchi dem ak mom ci tok ak mom ci digënté ñaari garab ci nim ko netalé nee na ko yaangi gis ñaari garab yi sax ah? yi sëñ mi né ko am ah, koy seen nee mu ne ko sul nañ fi ñaari walu dé ñaari nit yalla sul nañ leen fi yo xamné ñu amon baatin la ño xamné fi buñ fi masaan buñ ci sow dañuy xam fu ñu mosaan toog maanaam dañuy xam li xew fajant jant di sowee ak fa jant di fenk maanaam li xew li xew li xew ci àddina yëpp dañ koy xam ñoo leen rey ñoo leen rey ñun ñii suul leen fii yow nag yaay doon ki leen di ñetteel ñii samay maam ñoo leen rey suul leen fii yow yaay doon ki leen di te man maa lay rey sëriñ bi lu mel ni waxoon naa démb ne wax yu mel moom saa yi ma saan bàyyi ko ci ñoom rek di leen di tontu directe Ya. morom bi waxe la ba day nak seigne bi dane ko bëgg na nga xam yow bokkuloo ak sa mam yi ray ñaari wali yi man itam man itam bokkuma ak ñaari wali yi sa mam yi sa mam yi ray ñee li laa ko tont lolu xawna naa ben euh, benn bu ñetti doon dem nee capitaine bi ne ko fekk capitaine bi ku la ku fi door fi door affecté mu ne ko waaw dig naa ne yow ku mën tont ku mën tont nga ñaare itam saa yoo tontoo sa tontu day dal waaye baax na amul benn problème ne ko suba 6 heures du matin soxla naa la ci kaa suñ suñu biir kaa bi euh, nee moom sax laata ñuy àgg ci 6 heures waxoon maanaam ñu nee ba minuit jot dafa dem ci kaa bi ànd ak soldaaram xañ na kon la bëggoon a pexe ma bëggoon a Euh, jëfandikoo ba taxoon mu convaincre ko 6 heures du matin xëy na jàpp ne ne jooy na mën naa maanaam sotti na ba ba tax moom ba muy jotee rek la daal dem ci camp ba ànd ak soldaar yi ñi mel na ñuy jubloo def sport sport bu ñu baaxoo def waaye ne bi guddi gi jotee laata 6 heures di jot bi guddi gi soree ba mu ñu weesu lu bari laata 6 heures di jot nee na lay yónni ndaw mu woo la si mu woole si ma euh, ma jug ànd ak moom nee na bi ma jugee ñu jawali ca camp ba laata ñuy àgg nee na benn gaawar dam ñu maanaam ku yoru fas dam ñu euh, daa di may woo jaar sama tur maanaam moom sax kay euh, daa wax waa ji ji ma àndal nga xam ne moom woo si ne ko kooku nga àndal laa soxla sëñ bi nee ma daal di wàññi ko Euh, moom sax daa wax waa ji ne ko laa bàyyi koo ne ko kooku nga àndal mu Cheikh Ahmadou Bamba laa soxla sëñ ne bi ma wàññi ko ba ñëw euh, wax ak moom mu ne ma man la Jibril Jibril alayhi فسل يا رافع ولتسلمي على الذي بما تألمي بغير إثبات له في أبدي كما مهوت جالبات الوبد جبريل ميغا خامني موي chefu malaaka yi nga xam ne mooy seen njiit lu sunu boroom nam ma xamal ab yonante ci moom la koy jaarale lum nam ma xamal ab wàll yi moom la koy jaarale nee na mu wax ko lii ne ko man la Jibril ne ko sama borom moo ma yebal maa ngi ànd ak waa ahlu badr lim ñu sant nag mooy tey jii ci kaw suuf buñ fi bàyyi benn tubaab wala sax kuy nur nur tubaab nañ rey ñëpp alag leen li ñuy netali serigne touba moko ko bopam serigne Modou Khari bu solo ko tu tuddoon na turam ci ginnaw serigne Modou Khari momo moko enregistrer ci cassette cassette baangi fi ñepp euh, di diko deglu neena li lako wax neena ma ni waxe nonu ma seen mbolom ahlu badr ñepp and ak mom kenn ku ci nek yaa war ci fas ni mu waré ci fas mom kenn ku ci tam yoru jasi kaalaw nag teg waaye nee na fii Jibril di wax ak man may seen ñi mu ñi wax di Abdul Badri ci la capitaine bi moom it jàkkaarloog ak mook solda mook mook soldaaram ñëpp ñoom it jàkkaarloog waa Ahlu Badr maanaam daal yëfi moom wuññi ko ni ma leen di gisee ñoom it loolu lañ mujj di gisee malaaka yi ak Jibril xamuñ nag lii lan la xamuñ ñi ñan la fekk boobu moo ki soldaaram ndax boobu dem na sëñ bi dem na ba jege ci camp bi waaye àggagul ci camp waaye bi mu moo ki soldaaram nee na ci lañ tàmbale euh, di di di di di di di di dellu ginnaaw euh, ba génn camp bi waaye nag léegi fii bu dee fii euh, li taxoon capitaine bi woolu woon ko convoqué ko ci date ci heure bi ñu wax nii manam mom lim mu moy bu accès ñu fexé ba ñom yor si jël seeni bali fital ben na ñuy esport di jamandu fexé ba jam serigne mag bi radiyallahu anhu ben bal bu ko defé mu noppalu su boba légui duñ mëna xam ana kan moko ana kan moko dello ana kan moko fat ana moko kan moko ray bu ko defé bako ni bu lëntee rek ñom mëna ñu am jàmm Sénégal mëna ñu fa ba ñam ben jafé jafe ah waaye bu fekkee ne dañoo yebal kenn mu rey ko xaj na turam bu ñu ko xamee loolu mën na indi jafe-jafe loolu moo tax maanaam ay circonstances yu mel nii nga xam ne kenn du xam ko rey léegi fi jeex loolu lañ jubloon ci woo gi ñu ko woor ci biir kaa kaa waaye bi nga xam ne capitaine bi séen na waa Ahl Badr moo ak ay soldaaram ci niñ ko waxee léegi ci la soufflé ne bu kenn jëfandikoo ngànnaay ne ñëpp wéer seen i ngànnaay te yëkkati seen loxo pour wane ne xeexuñ nee na sëñ bi nee capitaine bi wax sëriñ bi moom ñoom bële lay amee rek moom ci lañ wàññi ci lañ jaar di wàññi ko moom ci lañ jaar di nëbbuwaat kenn gis leen euh, bi ne ko lii de xam nga ne say pexe la yaa ko def euh, ne ko soldaar nag maanaam ab arme waru la songe moroomu armoom ci nii jékki-jékki rek seen leen ñi agsi Euh, sëñ bi nee na bi ma waxee loo ba daaneel waxuma ko dara ci li muy wax dama ne ko loo may doyee lu tax nga woolu ma sëñ bi nee ko wax ko dara ci muy wax ne ca mbiri soldaar yi mbiri am nee na capitaine bi ne ko moom daal yow moom dañ lay dellu Sénégal dañ lay dellu Sénégal lii moom xamatuñ lu mu mënatuñoo wéy ak yow mënatuñoo continuer ak yow. waaye nag balañ laa delloo Sénégal danaa sàkk ci ñaari mbir bu njëkk bi mooy sa soldaar yii bu leen mos sant mukk loolu maa ngi la koy sarax bu leen mos sant mukk ñi alak ñi rey ñi bombardé état français bi li fekk maa ngi fi deuxième bi mooy maa ngi lay sàkku di la saraxu euh, xabaar bi bu mu siiw na yam suñu dugg suñu dugg ak yow sëñ ne li la ko nee na ma ne ko bu dee soldat yi moom ku doxul sama digg ak jaamu sama borom amuñ ci yow soxla bu dee nag maanaam lu aju ci siiwal secret beeg nëbbu ko loolu moom li feeg nettaliwu leen ko du ngeen ko nettali nettali li leen ko man dama ko nettali sëñ bi ne bi ma to bi ma ko tonto ñaari mbir yi ci lama wax ne ma bind ko waaw ne ma moom sax ko bind nee bi ma tontu ñaari mbir yooyu ba noppi moo ma bind li ma tontu muy ñaari tontu yooyu ba ma nopp ba mu noppi ba ba noppi nag ne ma signé signé signé ndax léegi mën ngaa mën ngaa signé ñaar maanaam li nga wax ni li nga wax ni nga xam ne moom laa yeexal bind ko nii ndax bi nag ne ko mën naa cee signé mu jox ko kayit bi bi ko joxee ne mu ci signé waaye sëriñ bi ne ni ma ci signé tam. Euh, daf ko ne damaa bëgg nga wutal ma kayit maana big bu bees peq bis maanaam prime daal prime prime bu bees peq boo xam ne monsieur su cee bind dara moom laa soxla ci laay mën a signé ne bi ko joxee ma daal di rëdd aw rëdd wax dafa ron daal di tomb ci biir ci biir rëdd wi daal di wàcc ci suuf bind qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad foofu laa yem loolu laa signé léegi nag ginnaaw bi nag léegi xam nga leeral nañ ne xissa bi sëriñ bi moo ko nettali te li mu wax ci biir contrat bi nga xam ne lañ signé mooy ne du ko siwal li fekk siwaluñ ko ñoom la tax sëñ bi nettali ko ci ginnaaw bi mooy ñoom ñi dañ ko mujj siwal dafa am kenn ci seen biir ku ko fekke woon ñëw ci biir bu taalibe mu di nettali ko ba ko sëñ bi yéegee moom it ci la ko doon nettali sëñ Modou Khari Bousso mi kon fii lañ jëlee décision indi Serigne Touba Sénégal lii moo tax ñi jël décision indi Serigne Touba Sénégal euh, kon ginnaaw bi lañ ko jëlee Gabon ci biñ jëlee jëlee décision boobu sëriñ bi nag am ndam seen kaw ci kaw état français bépp euh, koo xam ne xeex nañoo ak yow juróom-ñetti at yu manqué. def ci yow pexe mu ne benn benn juy ji benn andiwu ci te lañ bëggoon ci yow mooy faat la ci na mu gën a gaawee te sotu ji kon xamal nga ne moo am moo am euh, bi muy ñëw Sénégal nag sëriñ bi ne ci man ne ma ñu ngi koy indi senegal waaye moom indi gi moom ak ñàkk pexe rek la sëñ ta bañ moro ne dañ ma ñoo ngi la yóbbu nag waaye duñ la paasal bato bi yaay paasal sa bopp sëriñ bi ne lii lañ ko wax waaye nee may leen baax na fekk booba nee na yorul sax moom lu lu ko mën a paasal waaye nee loolu rek laa wax dama leen baax na biñ jógee ci bat bi nee na ci escale yi ñuy def am ci réew yoo xam ne fa jaaree euh, ay mbokk jullit fekk ma ci biir bato bi siyaar ma ñoo xam ne biñ ma nuyoo ku ci nekk jox nga ma addee joo xam ne ci laa mujj paase nga xam ne ba may d'accord ñoom ci ne maay paasal saa bopp booba sax yoruma lu ma paase waaye nii la ma ko sama war mujj joxe mi ngi agsi Dakar ci bisub talaata juróom-ñeenti fan ci weeru baraxlu tombeek atum 1320 ci ati gàddaay gi dëppook le 11 novembre 1902 le 11 novembre 1902 euh, bi mu agsee tam ñu baree bari fekk ñu baree bari yëg nañu sëñ mi ngi ñëw ñi teeru ko foofee ca port ba euh, ci rawat na ci mbokk taalibe yu magee mag Cheikh ibrahim Fall bokk na ci ñi gën euh ak itam ñu bari ci mbokam yi ñu xaar ko ñom ñoy ñoy gatan ñoy teeru fofé ci port ba bi ma accé Dakar dara di jawal nak dem dar bi mu démé dar gisé commanda ba ñu wéd waxtaan waxtaan wax na xañ na ci soir xamaguñ lan la wundu ci ginnaaw lañ ko bàyyi mu wéy euh, foofu itam la dajeeg euh, ku mel ne maam Thierno Ibrahim ci fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu nga xam ne mooy mooy euh, date bi nga xamee ne ci lañ sukkandiku bay màggal màggalu Daaru Muxti mooy bis bi nga xam ne ci la maam si Ibrahim njëkk a giseeg sëriñ mag bi Ndar ginnaaw bàyyi ko Ndar kon ci la dem Louga bim mu demee mi ngi njëkk wacc ci kër Sëñ cheikh Coro Mbàkke di rakam ginaaba ba mu jaar ci sëriñ Njulo sëriñ Njulo Siise kana ci talibé yi magi la bokku ginaaba na la kon ne dem ba sanno ci ci talibé bi wax Sira Lo Nasir sax tuddu tudd Nasir Lo waye sëñ Sira lañ ko gën a xame ci sànnoo si nag fa ag ci juroomi fan ci wéru koor lane severu kora muy ñaar fukki fan fa la ko ci kon sannu mom kenen dafa nganu ñaar fukki fan ak juróom euh, loolu itam ñu ngi koy fatali ko ñom ba di magal euh ginaaw ba mbooloo mu bare bari itam mooy diir am fofu ci sannu si ci ñaar fane ak juróom mbooloo mu bare bari fekk nañ ko fa siar ci ko euh, ku len ñi deg ñep deg xabaaru ne señ bi ñibisna euh, motax ñep jawali fofu ci sannu ko diir bu ba mu fa am ñaar fan ak juróom yooyu ak yéen na fa ñu bari bari ci ay kii am nañ sax ñoo xam ne moom doonu ñëw ay taalibe waaye foofu lañ ko fekk siyaare ko jaayanteeg moom ku ci mel ne Cheikh Ibrahima Jubal Machar yi bokk nañ ñu ko fekk moom keroog la ñu wooree koor googu ba wori te ñetti fan yee ci weeru kor yi ca la fa bàyyi ko ngir wéyal aw yoonam jëm jëm Daru Salaam waaye nag ci yoon yi jaar na ci kër yi bari bari jaar na ci kër yu bari bari ci taalibe bi nga xam ne foofu lañ féete woon ci dëkk yooyu lañ féete woon fu mel ne euh, taalibe ñuy wax góor mag jaw jaar itam ci dëkk bi ñuy wax Makkata Samba Babu dëkk yooyu dëkk yi xam la foofu ci boori Louga wàcc naa tam ci kër sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor mooy sëñ Mbacke Kajoor nga xam doomu baayam la moo ko sëñ Maam Mor Anta ñoo bokk baay euh, sëñ Maam Balaay mooy seen baay ak sëñ Mbacke sëñ Abdou Khadir Mbacke ñett ñoom ñett ñooyu la Maam Balaay sa am ci doom Abdou Khadir mooy taaw bi sëñ Maam Mor moo ci tege sëñ Mbacke Kajoor tege ci di seenum caat di caatu Maam Balaye sëñ Mbacke Kajoor moom kon dafay mujj ndax moom Maam Mor Anta Sali ak dañ koo magee lu bari moo tax moom moo leen fi mujj jamono nag sëriñ bi ba sëñ bi dem ci géej gi ba ñibbi moom moo tax sëriñ bi jaar na fa wàcc fa foofu ca Mbacke Kajoor gane ko fa ginnaaw ba na la fa ko jaar na ci dëkk yu bari bari fu mel ne Kër Maxtaar jaar na fa kër dëkk yu ñu xam la foofa ci taalibeem Kër Maxtaar ma nga fa jaaroon ci taalibeem bi ñu wax sëñ Masamba Xari Diop jaar itam fu mel ne ñaaxal ci taalibeem bi ñuy wax sëñ Muxtaar Marema Silla ñooñu xam nañ leen sëñ Muxtaar Marema sëñ Muxtaar Marema Silla euh, jaar na tam ñu bari tam ci waa Mbakol jaayante nañu moom ci yoon wi euh, te seen kilifa yi ñoo ci jiitu ci ñu jaale jaayante ak moom. fu mel fu mel ne kokki guy jaar na fa ci taalibeem bi ñuy wax sëñ Muxtaar Samba Diop euh, noonu la continuer aw yoonam. <laughs> noonu noonu la continué aw yoonam eh, ba ba ba àgg Daaru nga xam ne kon eh, jaar na ci dëkk yu bëree bëri Daaru kon mooy fi ko taxoon a jóg di ab dëkkam foofu la wàcc nag ci rakkam di ab soppeem Cheikh Sidi Muxtaar eh, mi nga xam ne mooy maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta nga ne waxoon bokk na ci ñi ko fa seet si ñi ko seet ci géej ga moom it mu ganee la ko ngan goo xam ne dem na am na semaine di ngan goo xam ne ngan gu siiw la goo xam ne guñ xam la gan goo xamne bi seet ray rey lu lu mat fukki xar euh, wala fukki yek sax lay lay wax euh, bis bu set ba semaine bi jeex ngan gu reey reey ginaa ba la fa nak fa fe ca Daaru salam dem Daaru manan Daaru manan lu ko lu fa xew ak lu ko fi indi Daaru manan xam nga bi mi ne ci geej gi euh, tuba bi biñ ko fa yobbo biñ ko yobbo ci geej gi dañu jëlone décision manam yàq daara ji tas daara ji te daara ji mi ngi ko bàyyi woon ci loxol maam maam Thierno Ibrahim tubaab yi jëloon décision tas daara ji yàq liggéey liggéeyam bépp saagaagoon ko moom foofee faat ko fa foofee ca Gabon loolu lañ bëggoon mara biñ bi sëriñ bi eh, kiyee eh, tomb loolu ci nawet bi la woon bi dem bi muy ci géej gi ci nawet bi la mooy ca mois de août ci la demoon boobu lañ jël mois de septembre sax laa bëgg wax ci la demoon loolu ci biir nawet bi la booba lañ jël décision yabal jur gi ñi ruru toli toli tool sëriñ bi fofé ci mbacké bari nga fa la fa la fa la daara ji néwon boba ginnaaw bi nak eh, maam yorna bind lettre sëriñ bi bi sëriñ bi yëgee lolu ci la ko bind lettre nak man nga ngaa fofu sanci daaru mën kon daaru mën naan gi sëriñ bi mi ne ci géej gi la ko la bindoon lettre maam Thierno ne ko na fa sanci yobu fa daara ja mo ra kon mom daaru mën la wara ñibisi ndax bu dé daara salam mom tegoon ci loxoy maam ci yanta bayé ko ko bam fay bayiko mom dar salam dekk la waxon mom dekkam la waye na dako mayan rakam ci mam ci anta mara ko dafa jaar non rek e si gane mam ci anta waye dal na la wara dem ndax fala njabotum nek fala dara daram nek fala aw nitam nek fala mam mam yorna mi mu ci njabot gi nek lolu mo waral mu ñibi darul nan fofi kon la accès ci bir kërëm ginaaw bo xamé ne gëj na fi lu mat juroom ñett yu manké yo xamné ay nonam ñoko génné won tum rankel ko yobbu ko gabon mu dund fa façon fitna bu ne façon tiis bu ne façon nattub yàlla bu ne waaye loolu lépp itam la ko wundoon la doonoon cause du leen lu may am lu mbëggoon te fitna ju mel rek moo ko mën a may yàlla jàpp na ko yoon woowu mu dem liggéey fa ba jot ah, ca mbébét ak ah, bëgg-bëgg yi nga xamee ne moom la doon yóotu ci biir tukki bi wàññi ko dellusiwaat ci njabootam mucc dara jëtu ko te mu am lam bëggoon ay nonam ñoom sooy perte amul dara ci liñ bëggoon moo tax mu wax ne ba alladhi kabadani bil maqti wa ubtu ghaniman wa taaba waqti ñi nga xamee ne euh, ñoo doon jaamaarloog man ñëpp euh, sooy nañ perte nañ liñ bëggoon ci man amuñ ko te seen xol tàng na man nag ñibbisi naa samam réew ak naa darul man naan li ma bëggoon am naa ko sama jamono de way di tay di neex rek mbokk yi kon fofu lañu dalalé suñu waxtaan ci tukkib geej gi di ñaan suñu borom mu defal ñu ak dégg ak top di ñaan suñu borom mu defal ñu ndimbalul li nga xam ne nañ ko fi ñi man ko dégg jëlé ci bind nafar ko jari ñoko wa axir naa alhamdulillah, rabbil alamin xamna ne euh, bu ñi ñëwaat suñu jotaay di di ñëw inshallah taala nak dañuy dugg nak ci jëm lu jëm ci magal tuba waxtaan ci lan moy iswaram ak naka lañ ko war a defee ndax mi ngi sës si te moom euh, ci tukkib géej gi rek ci la sababoo suñu waxtaan bi yii di ñëw kon incha allah dañu waxtaan lu jëm ci màggal Tuuba bala ñuy tëj nag euh, incha allah taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu وسورة الإنسان ذات الأزمان والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغيري درك فوابس سل بتسليم بعرمة أبس على النبي المنتقى المتوري محمد خير الورى المتيري